yaa wóor yaa baax yaa gën riis taaliba Serigne Bamba bi ah Baye Baye Batista numéro 2 borom Pikine Zos <laughs> Baye tas yaakaar Serigne Fatou borom Brésil moo noonu moo la féete càmmoñ ndeysaan Fall Fall daw na jëli ko ndeysaan Zos cokkaas na ndeysaan ndeysaan jokkaas nga la abu Fall kan Fall tey moo la nekk ah waaw nga ne gerte la ah kon jaadu na Fall ak Zes waaw Fall Cameroun mu nga noonu moo la féete ndi joor Adama Zes moo la féete càmm ñaari xale yi ndeysaan Fall Cameroun Zes Fall ak Zes su ko defee léegi ñu ñëw ci grand combat bi Fall Cameroun Zeus Fall Cameroun Zeus ñoom ñaari xale yi nu ñu nar a def Fall Cameroun Zeus ndaysaan maa ngi gërëm bu baax sama xarit ba commandant Thioune borom ku lëmbe ma lëmbe ku lëmbe ñu lëmbe sa kaw commandant yàlla sa jàmm yàgg ndaysaan ama ja production daaw na jël ko Zeus jël na tànk Fall Fall da jóg wala déet bañ na waaw waaw Fall Cameroun léegi nga indi bëre Sénégal Fall Fall Cameroun ak Zeus ndeysaan Fall Cameroun Zeus Zeus ngemboo ngemb lu xonq Fall Cameroun ngemboo ngemb Lagos ah ñu ngay wër de lu nar xew bàyyi leen xel ci le le 14 Modou Anta ah loolu loolu mbir la loolu mbir kooku de xanaa day mujjee ñaan rek muñ wut beneen téléphone ndax téléphone bu dugg fii moom surux aha gisuma ko mbaaw nañ woote rek ba xam dina am ko jot ci suuf mu yónnee ñu ko ah jaadu na cokkaay zongale zongale sës zongale na faal Cameroun bañ yegg nañ suuf jugaat Fall Cameroun Zeus Fall Cameroun Zeus Zeus Fall Cameroun Fall Cameroun Zeus Fall Cameroun Zeus Fall Cameroun mu ngi noonu Fall Cameroun Zeus combat baa ngi noonu ñoom ñaari xale yi ba tey ku nekk ngi wër noo mën a fexe ba jàpp sa geñ ak moroom ndaysaan Fall Cameroun ak Zeus Fall Cameroun ak Zeus ñoom ñaar ndaysaan ku ci nekk ma ngay xool a yëkkati nañu ko ay yëkkati nañu ko ndaysaan yëkkati nañ ko Faal Cameroun ak Zeus <laughs> waaye lii rek la am Soxale dóor ci suuf waaw waaw Zeus daan na eh. Sénégalais bi soo ko leen ne jaadu na jaadu na